bisimilah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk internet yi mbokk amateur yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar euh, di leen wax ne ñu ngi fii tey ci parcelle unité 19 ñu seet fi ndaanaan bu mag champion bu mag muy Papis Général yaakaar naa ku ne xam na ko bu feccee mu neex bu bëree mu neex gaynde Joal gaa ngi nii Papis Général ñu ngi lay nuyu. maa ngi ziar bu baax a baax. naa bi Doudou la bëggee di bëggee àdduna bi yëpp. sorti bi nga def keroog euh, indi coow euh, ñu ne euh, saa Kajoor Papis nee na li ko dal Papis moo ko ko def li dal saaka Kajoor Papis moo ko ko def affaire bi indi coow nit ñi di ci wax média yi di ci wax. muy saa Kajoor. Mhm. mbir mbëru Sénégal mbër bu fi ne ma am ak yow combat sama combat dama ko teg ci yoon ni ma komba jaral ma jaral ma ko am naa ay mbir yu nekk Sénégal la ñuy dépensé si combat. ëpp na sama cachet quatre fois wala cinq fois boo feebaree mystiquement am combat feebar mystiquement ah ñu ne ah ku mu mbëree la de kon combat am li ma ci dépensé dépensé naa ko waroo beneen combat waaye moom ci boppam après combat bi lii moo ko dal lu ko dal lu mystique hôpital la su ma woon sax bopp jàppale kii ma da koy jàppale def yenn yi te def naa ko de waaye mënu ci dara parce que du affaire mystique affaire hôpital la jëlis fu ci làmb li tey papi général fii papi général gauche papi général droite doomu jàmbur laa de waaye ragaluma kenn de waaye sama wax tamit dama koy teg ci yoon ñoo mujjee bëri ma ak moom mu jóge ci laa ma jóg feebar bëri na bëri ma coince am problème bu man damay romb nit ñi di nuyonte jàmm ak salaam te fépp boobu damaa feebar du waxuma di dox ndànk ba faju normal bi jàmm ak salaam yàlla mayaat ma jàmm nii te pourtant waxuma nit waxuma kenn dara jalis wala feebaru hôpital ak làmb du benn feebaru làmb ñaanu ma mu dal beneen mbër ci àdduna waaye làmb nag mbër bu ci dugg bu ne muy làmb ngay sangu. mu ñàkk nga ñàkk nga am combat di sangu nga ñàkk combat di sangu làmb baaxul noonu. làmb balaa nga gën sangu soxna bàyyi làmb ndax lu ñu si yow bu njëkk day ñëwaat. mais dañoo ne Papis sëriñam moo ko ne. Hmm. Euh, Sakka bu jógee ci combat bi dootul bëre. loolu lañ bëgg a xam nan la demee. c'est seen wax ak ni ma waxee moo dul benn. saakajoor bu ñu bëree ba pare. bu ñu bëree ba pare. ba ñuy jox ma dara pour ma ñëw dimbale leen mag euh, mamba la. Hmm? ci lañ ma wax loolu waaye du sama combat ak moom ma ko waxee ma saakajoor kenn da nga koy daan sama combat bi sama fit laa yóbbu saakajoor bi may cëpp cëppi. arbitre bu ñu nee saakajoor taawal fii ba bi général taawal fii ñu war a présenté wu sama xel maa ngi naa toj Sénégal tey ndax mun a bëri ak fit. waaw mais Papis sama affaire bi dafa xaw a garaaw parce que bu ñu nee Saaka Joor am na ñu doon laam-laami naan li ko dal euh, ñu nekk ci écrit ñoo ko ko def. am na am na ñu am na ñu ci doon joxoñ mhm. mais bu ñu demee ba tey Papis def sorti affaire bi coow li bari ñu ne affaire bi Papis moo ko ko def affaire yooyu te yow yaa ngi nii toog dañoo bëgg nga leeral ñu quoi ñu xam. waaw dëgg maanaam xam nga dañu naan écri dañu doon naan écrit am écrit am écrit am. waaw. Hmm? ci biir ki waxatul écrit am ñii naan sama combat ak moom man la mujjee bëral moo tax lii am. feebar nag yàlla koy dox doomu aadama. waaye suñ ma joxee dara pour dimbale doomu aadama boobu ma la sax yooyu ay mbir a ngi fi bëriwuma ak ñoom te maa leen di dimbale. te joxuñu ma ñenn ñi joxuñu ma cent ngi leen di dimbale. yàlla ko yàlla taneel feebaru hôpital la jàppale nañ ko ba dugg na hôpital yàlla mu war ak jaamu mais dafa am feebar yoo xam boo ko amee mënatoo bëre. sama waa ji su ma amoon yenn feebar yi mënatuma bëri ci àdduna de ay ay jabet yi ay yenn tuberculose yi fooy bëree ci jëm yow sa yow yaa ko dul tal leneen ngay defi xanaa ni war nañ ñaanal sax kii kii war ak jàmm dem defi leneen du mu ñëwaat ci làmb mais Sénégal boo waxee benn baat ñu foog ne ci mystique laa ko rek déedéet yow feebar jalis saaka jooju ñu waroon normal yow nga doon magam yow di nga ko naan ñëwaatal ci làmb ak ban doole. en tout cas daal fi mu nekk nii dafa mel ni ñi ñu ko doon jiiñ yëpp li ñu yéen woon yéeneeku yéeneeku woon nañ ko. léegi dañ naan euh, li ñu doon wax yëpp papis général la quoi papis général moo ko def saa ka joor papis moo ko def saa ka ah. yi daal papis daal coow li daal temps yi daal yaa xew quoi. Hmm? non loolu du xew xam nga Sénégal la am na ñuy comprendre am na ñoo xam ne duñ comprendre. feebar bu daloon yàlla ñaan ma ko yàlla te ma tudd benn mbër am na feebar yoo xam ne bu daloon koy fayee ko cent millions et quelque bu jógee si feebar googu noonu dootul bëre. déedéet. waaw mais boo deful woon sorti nag wax lii nag eh, kenn du ko kon du ko kenn du ko kii quoi coow li du demee ni Seken Seken moo bëroon ak kooku Mbour kooku di prise fii damm. Seken waaw. moo doon bëre kooku Grand Yoff kooku kooku doon prise prise yi ndigal damm ana mu léegi am na benn làmb bu amoon Mbour temps yi passé moom lañ defoo ci pousse pousse bi daal moo gën a garaawloo ci àdduna tamit mënatoo dara handicapé fini 100 pour cent làmb mel noonu ci live làmb baaxul ci man keneen. làmb baaxul am na xaalis amul xaalis làmb moo garaaw moo baaxul sama doom sama doom lu bëri ci àdduna mukk combat moom mbër bu ne mosuma def li mosuma def li kooku boo deewee ci la ko yàlla yokk yàlla dinañ ko lijjanti waaye combat ñëppay def lu ñu def man nag sama combat dama ko foowee de foowee ma sama xalaatuma ko foowee yëfu góor la dama dégg benn eh, maire di naan Khady Diouf làmb buur nee na ku ci dee ñu suul léegi boo déggee làmb ji da naan ah ku dee ko ñu suul la day déet waxul loolu pour ne la làmb dafa métti yëfu góor la làmb musiba la bokk ci àdduna waaw feebar na yàlla ko yàlla may tan ak jàmm feebar naa deux ans la def instant train naa kon daal mu leer daal li dal Sa Kajoor daal du papis moo ko ko teg loolu waaw lu tax lu tax ñu doon jiin ay seen waa kër ak seen seen waa écrit am na ñoo ko njëkk a jiin mhm. waaye man maa mujjee bëreek moom waaye lu ma defee sama combat du ma ko fàtte di wax. 4 millions la ñu fay 225 mille laa ci dese man ak Coumès damaa dese dara man ak Coumès sama reliquat bi sama jabar laa ko may sama reliquat bañ ma jox CNG dagg ma ndax avertissement sama jabar laa ko jox maa ko may fa bis billaay walaay talaay 50 mille kese laa ci dindi li des ma may ko billaay walaay talaay làmb la man sama làmb moom yow ñaata nga dégg ci internet la mosuma denc 1 million ci combat ci compte. internet bu ne ma wala ko mosuma denc 1 blessé ma la ma doon denc lu ko raw macha allah ay nag yi nag xam nga ko loolu ma ak sama waa kër la ak sama vie privée mais Bébé Diouldé mosuma denc un million ba onze combat ah lu tax ñëwee feebar ñu feebar bu ko raw ñee ngi dox de seen soxla de ñeneen ngeen bëre de keroog maam bala génn de bëre na daan de moog tafa am bëri gii xam moom bëri nañ te dem ci dépassé bu baax. waa ah, léegi li nga ne euh, Balla Gaye dafa la jox xaalis. Euh, nga dem euh, doxal ko feebar boobu quoi euh, bi nekkoon ci Maam Balla ak Saaka Joor léegi loolu nan la demee. parce que ñoom laa mujjee bëreel ñoom ñaar laa mujjee bëreel damaa bëree kii ba pare bëreel a ak comme na ko baax ah moom mu dëkk géej waaye def social doon nit ku baax chaque jour dama koy wax. kooku noonu bu mbër yëpp demoon leen ni moom mbër benn mbër am coono Sénégal gii. waaw ndax da ngay dëkk ak mbër da ngay dëkk ak mbër mu ëpp la moyen foofu du la faale. moo la koy jaay di la gondi moom daa yàlla da koo baaxal mu ci dimbalaate doomu aadama yi te ko koy def ko àdduna doo ñàkk dara lu baax la si jublu man tamit comme nit laa comme ñëpp te su ma amee problème damay dem nit dimbale ma mu xalaat ne comme ñoom laa bëree tamit war naa mun a def lii ñoom ñëwoo ma lii am mu jeex. mais lu waral appel boobu dañoo xool ba xam ne yow yaa ko def wala nan la demee ba Balla Gaye woolu la. mais xel la rek Balla Gaye ba su ma xamante rek moom xam na sama tur xam naa turam. moo la wóor ñoom ni mu moom kese sax ni moom kese ma man maa dem ba këram bàggal boo jël sa këram léegi man maa fa dem waaye nag mun naa ne xaalis bi boo ko génnee ci boppam dimbale ma lii ak lii laa bëgg nga dimbale ma ci ñii dëgg nag yàllaa ko moom yow sama waa ji Sénégal yëpp bu meloon ni Balla Gaye jàmm dina am ci dëkk bi ak ay neex ko ko doole dimbale ko waaw. Ah. loolu yàlla bëgg na ko de wax dëgg ne yàlla. mais ndimbal googu da ko yàgg defal ay mbër wala. yàgg na yàgg naa koo defar yàgg naa koo defar ay mbër kon nag bu ñu xool ci Balla Gaye Balla Gaye dimbalu ma ko pourtant moo ngi am ay combat di daan te pourtant dimbalu ma ko parce que maak moom mosul dugg oto ma dugg oto ma ànd sëriñ maak moom. billaahi walaay taala mosul ne te pourtant du ma mën a bëre dóor bëre simple ci may simple dama doon jëlee samay bagage di ko jox nit bëre simple billaahi walaay talaahi dund naa ko ak Ndiaga Sarr dund naa ko ak Ndiol Amsou dund naa ko ak Joos suñu benn bay tudd Joos collège de la Petite Côte daa mujjee dafa Joos benn symbole la wax defam ni ñoo xam ne yàlla danañ jàpp eh, may xol gu rafet waaye lu tax duñu xool xol gu rafet pourtant ay nit bëri nañ fi kii daan kii am problème kii am problème mooy demal boppam di demal boppam bu dañee baax na bu dañee lu baax na mais fii ñu ñëppay jàppante mais xoolal nga ñëw ci nit mu la ak garaawul kaa ñu ànd kooku bëgg na jàmm nañu bu ñu xool lii am na xool acte bi kii def. sama combat ngeer wu sax mënu ma woon nooyi ngeer bi ngeer waaw Umar damaa mm-hmm. feebar ba bugg a dee. beneen garaaw su ma dee am benn problème parce que xalaat naa ne noonu la mënu maa gën ci feebar gii. waaw mais ngeer dafa bëre ak euh, Mamady Ndiaye daan ko yow nga jël ko lu waral loolu da nga doon vengé wala. non non man ak Mamady Ndiaye du vengé woo man ak Mamadou Ndiaye dafa nekk xale boo xam ne dafa maa teel a jege ci àdduna bu nekkee village Mamadou Ndiaye doon sama xarit dama doon dem bëri sembal nit daan ma Mamadou Ndiaye ñëw daan ko billaahi wala taala mën naa ko seede nit daan ma bu daje Mamadou Ndiaye Mamadou Ndiaye daan ko ngir yoonu laa ma ñu boole mu bëgguma ma bëgg man mais comme maam xoolal ma ci feebare saa maam lu ma dégg ci moo xam ne parce que maa ngi woon Dakar ñu ngi village ne ma génn ci télé bi dafa doon naan awaa ah ana Ali man tudd ma ay papa Ali laa tudd ana Ali mu ne ko Ali nga mën a wax kii du Ali ndax la ni ma sewee rucc ndax feebar gu métti pourtant dama ba kër ma nga ne ko annulé ko annulé combat gi mu ne ma instant yii CNG doo obligé ma nu ñu koy annulé te papis te pourtant damaa dem yàlla may ma ndam te maa ngi bëggoon ak feebar ma takk dara damaa def lu may def rek daw taw daf de génn baaku ma sa cinq minutes ndax damay bañ a fat ci biir dee biir làmb musiba la léegi Papis mm-hmm. looy wax Sakka da nga koy jéggalu wala lan nga koy wax moom Sakka ndax xam naa ne mm-hmm. instant bi wax ji bëri na ñu ngi koy woo naan ko Papis lii Papis la looy wax Sakka Dior saaga joo yàlla tane ak jaamu saaga joo ci boppam hmm? ñu koy woo sax ku ko ci woo ku mu wax la ndax góor yàlla la am na fit xam na boppam da lay naan hee nangam nangam. kañ nga gëj a déggante ak moom. kan. loolu yàgg na torop ci àdduna buñ jël wax ji bu ko siwal nii nangam corona bi ci coronavirus lañ ne nañ ñaan coronavirus génn Sénégal moo ko ñuy woo diw ak diw ak diw ak diw ñi ñaa feebar. coronavirus ak lu dul coronavirus ñoo ngi bëgg a dee seen hôpital yi suba mun naa xëy ñu naan Papis Général dee na dañ may suule comme ñëpp ay ponkal leen nañ fi yëpp borom alal ay borom maakaama saaka joor na doomu aadama yi bàyyi affaire whatsapp ak man am sa portable whatsapp moo tax nañ bàyyi affaire whatsapp ak saaka joor Papis yàlla mooy dox nit feebar yàlla mooy rey doomu aadama yàlla mooy teg nit nattu max ba na nit. mooy liggéey xaalis waaye yàlla koy séddale nañ xool ñuy wax ak ahlu làmb ngeen def social cotiser suñu xaalisu bopp ku nekk loo indi baax na ñu jox ko kër ñoom waa Saka Dior mu dem faju ji hôpital bu doon affaire sëriñ ndax billaay walaay talaaxi sëriñ yi ñoo ngi nag Sénégal am pagaay yu baax a baax a baax kon war na bu yàgg. ñàkk fayda yi whatsapp whatsapp dangay whatsapp bu amatoo loo whatsapp bi sonal nit ñi fii ak Saka Dior professionnel ñàkk fayda yi mooy lan. moom kese laa bëral ah. romb ci mbedd gi feebar bu gàddee sa ruuj luñ may wax dara te mu rek ko soo jóge ci làmb ma feebar bu gàddee démb rek wax naa ko Assane Ndiaye ma jóge ci kooñ sama feebar sama waa kër 6 mois la ñu def gisuma 6 mois sama waa kër dañ maa localisé pour gisuma sama mag bu góor jo ñoo bokk nekk bàyyi dafa maa localisé pour gisuma ndax feebar bu métti ah kan ma ko def cause ba ma ko def làmb la. maa opté làmb lu ma ne ci làmb ma xam ne maa opté làmb waaye yàlla tamit lu la ne lu ne gëm ci yàlla nga xam ne yàlla mooy dogal léegi nag yow bu amoon ay milliards tey looy wax jékki rek yoroo cent francs yàlla may la ay milliards looy wax déedéet du yoon moo tay ngay dund ci àdduna am milliards bi sax ba yàlla teg la feebar nga dee looy wax da nga naan yàlla kese la bëgguma kuy am bëgg gëm yàlla boo ñàkkee di yàlla loolu defu doomu aadama kooku du góor kooku baaxul ku bon a def loolu boo amee yàlla la boo ñàkk yàlla la kenn du am continuer waaye kenn du ñàkk continuer mu neen mooy président mbër yi Gris Bordeaux maa mhm. ngi ko nuyu bu baax de passage bu baax ku muus ku mën a wax mbër yi booloo waaw ku nekk cinq mille cinq mille ak mbëri Sénégal ñu toll ñu ko mun def ko cinq mille cinq mille la wax de mën nañu ko yóbbu kër Moussa Kadior moo gën wax ju bëri ji hmm? mu am jàmm amal ñëpp jàmm boo rombee géej waay ne saa wajo géej waay lu mu def géej ma fat lu mu def ma fat dëgg la dégg naa ko bu bëree bëri waaye wax ji yëpp matatu xam nga lu mot ñu cotiser ñun mbër yëpp ensemble ku nekk 5000 5000 5000 5000 wala 10 000 ñu mën a def 100000 def 100000 ñu jël xaalis boo ko kër sa saaka joor mu yokku parce géej naa bëri am na jabar am na ay doom am na famille te ñoom famille seen wax bi ñoo ngi dépensé lu rëy ñoo ngi dépensé lu métti métti na ci ñoom. Euh, sa combat ak Quench combat boobu bi mu jàllee euh, dégg nañu ay rumeur euh, sa diggante ak Assane ba barke démb rek ñu dégg ne Assane dafa porté papier général plainte ah li ne kur ci dëkk bi ah loolu lu waral lu tamit Papis. <laughs> xam <laughs> ñoo bëgg programme xam na comme programme fa la am. dañoo am jot. mu mu musiciens yi tegatuñoo football amatul làmb amatul Sénégal daal boo nee critim ñoo la critim waaye yow Assane Ndiaye instant bi brigade boo dem wala police boo dem dañ lay bindal amatul porter plainte jusqu'à nouvel ordre ndax coronavirus bi dañ koy bëri ci brigade yëpp xam nga baax Assane Ndiaye mag moo ñu woo téléphone mag moo ñu woo waxtaan ak ñun. lu mu wax nag dëgg na tamit din part Assane Ndiaye sekk nañ lii ci combat combat jeex na franchement parler waratuma woon am dara may wax Assane Ndiaye est ma ne ba may ñëw fii ma jox essence damaa génnoon démb dama demoon jam ñaajo fa laa fanaan jam ñaajo laa fanaan démb am lu ma wuti woon foofu noonu ci benn sama benn kilifa ba may ñëw nii sama scooter bi dafa paan nga gisoo ci bunt bi nii Assane Ndiaye moo ma jox paas bu may ñëw même instant yi nag instant yi sax dafa wut war orange mu am. për bu rafet la ko jox për bu rafet mu ñëw ci émission bi sànq gis nga leen moo ci la ma bi waaye kon noo xam naa dina weesu loolu foofu. làmb la c'est que bu ñàkk rek foog nga am noo def damaa ñàkk suñu coin sama xol jeex te dama doon dinaa def 15 combats sans défaite 5 15 combats 15 victoires man moo def sama décision ci àdduna. onzième combat mu am nu mu tëddee sama xol jeex foofu nag mbër moom. mbër bu daan rek am lu mu lay. du ñëpp nag de waaye mbër bu daanoo boo waxul ci média tamit dina am foo waxee sa kër waaw mbër nag eh, làmb nag warul xaajale daa war a bokk waaye làmb nag moo gën a gaaw ci xaajale doomu aadama làmb luy tas musiba ci àdduna làmb moo gën a gaaw Assane Ndiaye sama gars la de dañ doon déggante téléphone normal man nag mun naa wax ne lii mu am lii am waaye nag tooñ tamit su ma ko defee ma naan maa tooñ te maa tooñ ndax avance la jeex na laajte na ma benn ñaari yoon ba ñetti yoon non franchement làmb lañ seekoon danga maa yore xaalis ma ne ko déedéet yorelu ma dara parce que mosuma yore benn xaalis ni nga joué ma ma neexul Assane Ndiaye mu ne ma tamit ma yore duma xaalis combat bi jeex na franchement combat bu jeex na war a tudd turu jàmbur ah. waaye xam nga yéen journaliste yi tamit da ngeen garaaw xoolal keroog bu ma waxee sama kër ak nu mu ko waxee xool lu mu indi si dëkk bi ay Sakka Dior ak Seyna bu Ndiaye ak Fatou Cissé jaru ko waay làmb la yàllaay maye yàllaay reyaate kenn daakuma bari Sénégal maa ngi ni mosuma doon roi des arènes àgguma sax seen première division te ñoom ñëpp xam nañ kenn daakuma bëri ci ñoom lu tax yàlla xam ne li laa war a am rek ci àdduna defi leneen xooli leneen xool sama lamb fu mu yem tamit ma yemale ko fa ah. waaw Assane Ndiaye ma maa ngi koy bu baax di ko ziar. Euh, bu mag boobu ñu ngi koy ziar euh, Papis euh, lan ngay wax Assane Ndiaye. Assane Ndiaye waxtaan nañu Assane boo xefee su ma waxtaanee ak sama staff ba boo xefee sama combat bi di ñëw moo koy dëggaat. billaay wala da Assane Ndiaye boo xëfee sama combat bi di ñëw moo koy tëgg dañuy naan euh, réeroo amul ñàkk wax waxtaan rek a am waaye réeroo amul waaw man moom suma wax moom dafa dafa dafa dëgër waaw sama olof a mel noonu nag de waaye nag comme ma fen sama yaay sama waajur mu leen fen ah wax dëgg dama fen doomu aadama tamit de kenn jaralu ma ko de waaw man daal maa ngi Ndakaaru gi jàmm ak salaam yéen a ñëpp jàmm. ku ma ne ko bis am naa problème bi ma dimbali la si su ko mënee su ko mënul ma toog waaye yéen ma kenn musiba waaye ku a indil musiba ah dinaa yow de doomu jàmbur laa de te yàlla day may de yàlla day may kii xaalis yàlla may kii mën a football yàlla may kii bëre kii basket kii naan ku nekk daa yàlla dafa am lu may may ku nekk rek am na lu yàlla may ci àdduna Assane Ndiaye moom may tëggaat combat bi di ñëw incha allahu rabi àdduna moo solo nañ dem waaw ñaari defet bëgguma ko de daanu daanu waat. ah mais Papis est-ce que gaa yi dinañ la ñemeeti nag. Ah, ah coow lii ñu naan Papis dafa mystique ak Papis moo def kii lii Papis moo def kii est-ce que mbër dinañ la nangoo dinañ nangoo di jël Papis. Oh, yaakaar nañ maa ragal à part affaire mystique mystique c'est yaakaar nañ maa ragal bu baax à part mystique man damaa mën a bëri xam nañ ko bu baax mais par exemple daan séeréer si séeréer si ñi muñ ko peñ nangam man maa bokkul ci séeréer yooyu xaw ma sa ñan lañ ku may jël daal nga pare. affaire ragal yeeg mbër séeréer laag du ñemewul dóor ak nangam ma ci ñooñ de bokkuma mbër bi ñuy napp de wax naa leen ko bu baax a baax papi général sa koñ sot ngeen ma yéen a xam na ngeen di sot sot ma waaye ma ne ko yow ci àll bi xam nga may nuyu ma nuyu rek de waaye papi général yaa waxoon lii wala def lii ci biir àll wallaahi kenn du ma ko def Sénégal sama combat bi dañoo nag ku ñeme rek la nga jël xeebu ma kenn ku jël baax na. ah ñun de dañoo yaakaar ne xanaa Papis daa bàyyi bëre. bàyyi ma woon bëre damaa su ma jógee sama combat damaa tawatoon wax dëgg rek a neexee yàlla billaay wala tax damaa tawatoon waaye instant yi jàmm ak waaye nag sama defet bi gëmuma ko woon moo tax bu ma jógee ma daanoo bu may ñibbi nii laa yi ne nii yàlla bàyyi naa bëre billaay ba soobee yàlla bàyyi naa ñoom ñu bañ yuuxu tàccul ma xam nañu Pape Général bi ñu xam bii du benn ñëwul. waaye nag instant na maa ngi nii sabantu ndànk-ndànk ci entraînement yi ndànk-ndànk ak sama gars yi rek ci koñ bi déwén moom incha naa dinaa ñëwaat Euh, jamono ji kan kan nga visé. non instant mënu ma am adversaire parce que damaa def deux ans bëréew ma gaa ngi bëre ñii di daan ñii di daanoo mënu maa ne ma kii wala joxu ma kii xam naa ne mënul ñàkk nag ku am fit nag ñëw jël ma wala. <laughs> Tidiane fay ñeme nga ko le professeur. Tidiane Faye. voilà ma ñëwee gañ. combat <laughs> jànk la dafa neex sax dafa neex. ñaari jinne ñaari waaw waaw yaa ak Tidiane ku dàq bëre. franchement rek su mënumaa moom a dàq bëri mënumaa ne maa ko dàq bëri franchement a bëri est-ce que boo gisee sa a bëri mun a bëri yow da nga koy bëgg force boo gisee sa adversaire bu mun li lay def nga xam footballeur boo mënee sa ko mën rek koy def da nga koy bëgg trop ci jaan fa a bëri macha allah macha a bëri mu ma wax ne de maa ko dàq bëri te nit di nga ko dàq bëri sama daan la nit da nga ko dàgg bëri foofu mu daal la mënoo ci dara làmb dafa am dafa am ay kii bidéew yàllaay maye ndam dañu naan sa jour sa jour àdduna kenn mën a ci toroxal kenn mën si kenn mën a def lu la nakari ndekem kenn mën a ci def lu àdduna parce que doomu aadama bu ne am na jour boo xam ne moo ko moomal boppam sa jour boobu nag ku tombé ak loolu noonu ci àdduna sa jour lay fekk da lay yokkal rek waaye du la wàññi mais am na xale yu nekk ci suuf de xale yi bëggoo ci xanaa. man ka nee naa la man aw ma adversaire instant koñ ma jox ma jël Dakar Dakar te xale yi ay bandi xale yi dañoo am doole man xale yi loo ma jaaxal si ñoom de waaye nag. Ah, am nañ doole de ñeme nañ de <laughs> waaye nañ jël général gi rek hmm. waaw waaw waa maa ngi fi dañ ma jël rek incha allahu rabi. waaw jërëjëf euh, jërëjëf mbokk internet yi waaw ma leen di waxaan rek ngeen abonné ci sit bu mag bi Kewel Info. Euh, mu nekkoon seen xarit Doudou Satou ànd ak euh, euh, sama caméraman Bamba di nuyu ñëpp di ñaan yàlla coronavirus bi yàlla jëlee ko ci Sénégal jëlee ko ci àdduna bi yëpp.